merci amis fidèles téléspectateurs yu télévision GTV Global Télévision am nañu mbégte yi ànd ak yéen ni ñu koy defee saa su nekk seen jotaay bi di toi-même tu sais bu 7 h jotee jàpp 19h euh, bu soobee suñu borom fas yéene ci ànd waxtaane lu jëm ci actualité euh, politique et sociale Waye, waxtaane actualité du net ay tëj ji bokk na ci tamit euh, li nga xam ne moom surprise ginnaaw bi nga xam ne Babacar Allo aussi ñu gën koo min ci les mardi également bokk ci jotaay bi ni ki ji waaye tamit dañ ci ànd saa su nekk ak 15e euh, euh, région, c'est la diaspora, euh, notre seconde famille, au niveau donc de la diaspora Belgique, France, Italie, Espagne, ak euh, foofee ci Allemagne partout en Europe euh, di euh, nuyu baax kii di Babacar Samb Babacar fay bokk ak Diaw Samb mu teg ñu nuyu bi ci ñoom Ahmed Sadine ñoom Sall Samb waa tund Europe gi yëpp rawatina fële ca États-Unis d'Amérique soxna Maguette Mbacke ñu gën koo xam ci noblesse moom it ñi ngi jokkoo rek fan yi nekk ku baax ku ñu bàyyi xel ñu koy ñaanal jàmm ak wér di taal yëpp Serigne Touba nekk foofu ca New York City moom ñu koy ñaanal jàmm ak njabootam waaye tamit fàttañ bu baax kii di ba bu ba Ndiaye foofu fekkee ni yor ko ak ki nga xam mom di kon euh, ki di euh Thierno mam Thierno Kagne ma nga foofee ca États-Unis aussi donc waxtu li xamna ñi ngi ci euh, suma juumul danaka waxtu ndax ñoom 5 heures de temps lañu rawanté rawante ci euh, li di décalage horaire bi en tout cas euh, mu euh, nekk kon euh, ñoo xamanteni ñuy bayyi xel bu baaxa baax fi ci Sénégal di nuyu bu baaxa baax ki nga xam modi moom moo di Alaaji Onge Diagne ca Cambérène doyen Ismaïla Aïdara confidentiel Afrique ko ñaanal jam ak wér borom li nga xam ne moom kon magazine bu am doole bi am 13 millions de lecteurs et toute la team choc de confidentiel Afrique avec Maguette Mbengue ak ki di Safiatou Koli ñu leen di ñaanal jam ak wér di ñaanal doyen mu yàgg fi lol te wér di ko ñaanal tamit maire Nafi Sall mu Sacré Cœur Adja Ndeye Koumba Sam Samb fii ci jëppal euh, dërkale di suñu yaay di ñu bàyyi xel également saa su nekk waaye tamit El Hadj Ousseynou Pouy quartier Thiawlène euh, ca Tëng Géej fa bàyyiwuñu kan Abdoulaye Sow ma nga ca golf fële wala boog ca amoo carte euh, ca Géejawaay bàyyiwuñu ñëpp ñi nga xam ne ñu ñu bàyyi xel ndax ñi ñu dajale ñu ñuy sollicité ñu ñuy en tout cas apprécié bëri nañ waaye nuyu nañ Bara Sow Ahmadou Khadim ma nga kër sëñ Bass Mbacké Abdou Khadre en tout cas bàyyiwuñu

Mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay yëpp di wàcce suñu bopp raamal la nuyu la mm-hmm. di nuyu Babacar nga xam ne moom dama ko namoon def naa <laughs> est-ce que gëj nekk ci koor gi lañ gëjoon gisee si Alwasaaya mm-hmm. émission oustaz euh, Makhtar Sarr def naa ci lañ gëj a gisee maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu aussi Serigne Mbacke Fall la man maa dagg Fall ji ah, Serigne Mbacke bi def Mbacke ji rek mais Serigne Mbacke Fall la waaye lépp waaw lépp génn rek <laughs> yow daal man daal jox naa la sa wàccuwaay bi nga xamante ni mm-hmm. moom la Mbacke bi laaj mm-hmm. ndax euh, ñun loolu rek la am ñun Mbacke lañ fi am si mm-hmm. ak laay ak ñas te loolu la ñu gëm loolu la ñuy dund aussi di nuyu sama benn jigéen yaay sa couture madame Fall depuis fii Ouest Foire mm-hmm. ci télé bi noonu mm-hmm. jigéen ju baax nangoo liggéey mm-hmm. di ñaw lu rafet comme ñaw lu jërëjëf euh, consul Jawar Euh, ñu ngi koy nuyu baax moom Babacar à la voyage borom rubrique bu am solo bi nga xamante ni ñëpp dañ koy yàkkamti les mardis et les vendredis ñu am mbégte ànd ak moom chérie madame Thiaw ñu ngi koy ziar soxna Maguette Diagne ñu ngi koy nuyu ak Mouhamadou euh, Thiaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax depuis Colobane euh, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Abdou di amaat mbégte ak cawarte. di wax ne añ bi fàttewuñ ko tamit. non foofu foofu même même coach sax day ñëw dañ koy yokk ci añ bi. ah, ah waaw waaw. coach bi daa bëgg sinop. ngi xaar DG ñoom Aliou ñëpp ay ñëw. voilà donc balaa Abdou maa ngi am mbégte ak cawarte bokk ak yow plateau bi. Mhm. di amaat mbégte ak cawarte bokk ak plateau bi c'est tamit coach vraiment mhm. comme ni mu ko waxee xaw nañ nga ji gisante mais ñi ngi gisante ci euh, à travers euh, écran bi parce que ma ngi suivre lu am solo li nga xam ne mu koy def du nuyu tamit suñu invité bi nga xam ne comme ni ko coach waxee léegi ñu ngi koy jox wàccuwaayam xam naa di nga ko présenté léegi ah. du nuyu waa régie suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy teewlu ci Sénégal Afrique ak àdduna bi waaw di profité aussi waaw di <laughs> waa régie nee na ay añoobee ñoo fi nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu <laughs> waa régie di profité aussi tamit euh, Abdou ci xibaar bi ñu jot leen di xibaar bu tiis suñu pap euh, El Hadj Mansour Mbaye mhm. euh, il paraît que dafa am benn doomam bu génn àdduna ñoo ngi profité ci occasion bi di ko mm-hmm. jaale doomam boobu nga xam ne mm-hmm. vraiment euh, yal na ko yàlla xare àjjana di jàll mm-hmm. njaboot gi yëpp ndax papa la boo xam ne référence la ci réew mi papa ju baax la papa ju loo xam ne ñëpp ko sopp donc sunu papa Mansour Mbaye ñu ngi koy jaal doomam boobu Abdou muy tiis ñu ko koy jaale bu baax a baax ndax moom ku ko xam-xam ko ci euh, régulateur social da koo xamante aussi kàddoom xam naa fii réew mi toll nii yittewoon nañ kàddoom ngir euh, vraiment calmer les ardeurs aussi également indiwaat dal ci euh, lii di euh, coow yi nga xam ne lëmbe na fi ndax ñoom ay porteur de voix lañ euh, sunu papa El Hadj Mansour ñu koy ñaanal fan gudd moom it ak wér di ko jaaleel di ñaan sunu borom rek fi jigéenu noonu ne mu daal di koy xare àjjana mu ngi fi ak ñun Serigne Mbacke Fall di conférencier di jàngalekat également gëstukat ñoom mbégte ànd ak moom ci Touba Mimti ñu ngi lay nuyu. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. والصلاة والسلام على أصرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما وجع الكلام راصدا ومرسدا وفكرتي نوير وخلبي أرصدا وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكسا في وطني سن عبدو لي جاي نيلي ديلو نيو اك زيار نك نونو دي نيو كوت دون تي تاي لا ني نك غيسه دي رافت لو بو باخ ورما جي Eh, dañu wax ne yonent yàlla Moussa bi ko yàlla yónnee mu ànd ak mbokkam ba di Haaruna mas naa daje génn góor goo xam ne sax jotu koo gëm mm-hmm. waaye nag da koo jox wor ma mm-hmm. Moussa ni ko sama borom bi may nuyoog yow xamal na ni ma dund tey la waroon a yem mm-hmm. waaye tinul naa la ko ba yokkal na la ci at yu bari ngir war ma ji nga ma jox xam naa li Moussa mënoon nun mënunu ko waaye di lay ñaanal suñ borom war ma jooju mu doo defal la ko dara ja naka noonu di nuyu sëñ Babacar it di wax ci moom it lu mel noonu di am mbégte bokk ak yéen seen jataay bii nga xam ni xam-xam rek moo fi jógee incha allah incha allah am na solo dégguma arab di waaye xam naa ne watani moom mooy xanaa réew waaw maa ngi sant fii watani moo di ma am jàmm am wërsëg am tawféex te sax ci samam réew ñu koy ñaanal tamit njiit bi almas nuñ koy sax njiit président nuñ koy waxee sax araish araisu sénégaliya araisu sénégaliya a sénégali sénégali président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah waaw mooy jàngal dafa mel ni da de non non moom laa bëgg jàngee kay

nekk ñoom sëñ Abdou Mbacke ak euh, sëñ Modou ak sëñ Mbaye ak ñoom ñëpp daal euh, ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ginnaaw yàlla euh, daal sàmm leen bu baax a baax ñu yeesal bu baax suñu kon taqoo ak sëñ Abdou Mbacke Balla mi nga xam ne jamono ji moo fay toog toogaayu kilifay wajuram ndax di koo xamante aussi ku ku am dal la ku amuk ku am yar koy ñaanal jàmm moom sëñ Abdou Balla di ziare tamit bu wax sëñ Cheikh Abi Mbacke mi toog toogaay sëñ Abdourahmane Mbacke jamono ji Italie ak njabootam yëpp sëñ Cheikh Khadim ñu yëpp yàlla dafa leen tawfeex bu baax a baax Euh, fële la woon ca Mbar euh, ci samedi bi moo leen ko ñetteelu fan bi ñu doon ko euh, donc ñaanal di ñaan suñu borom yokki leen ci taas ñu moom Serigne Mambal Mbacke bu ngeen gisam baat bi dee nii loolu moo ko waral ndax voyage bu bettee waaye tamit di tamit fàttali rek na foofee ca Mbar sax ci gàmmu gi bu soobee suñu borom waa MIM di mouvement islamique de Mbar dañu amal li nga xam te moo di gàmmu gu am solo at bu jot ñu koy def ci woo ñëpp di ci sàkku teewaay bi ñëpp jëwri Nuuru Ndiaye ak mboolem ñi ñu ko bokk ñoom oustaz Thierno Cham di sa mbokk conférencier di waxtaankat bu mag aussi ñu ngi leen ci wo ca mbar fofé ca penc ca ja ngir rek amal gàmmu gi di guddi gént bi kon di mouvement islamique bu mbar di mim ñu ci wo ñepp rawatina mbolam ku yoo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ñu da dem kon tout ci euh, la première partie de cette émission c'est euh, l'actualité du net

maanaam ay faatu yu amat maanaam ci euh, ndàngal ma 16 morts ci euh, mbëkkante ab camion la ak bis mu nekk loo xamante ni waa Sénégal ñu àgg xibaar bi euh, kon ñuy gën di weññi ay faatu ci kaw tali bi mu mel ne kon tey jii la wàllu gën a ay doonte gis nañ bu baax a baax à chaque fois mesures yi nga xam ne dañ koy annoncé wala bokk lépp lu jëm ci ay xeetu alerte wala bokk ay sensibilisation jëriñ sëñ Mbàkke nga am ci man xalaat. waaw jërëjëf sëriñ Abdou xanaa xalaat bu njëkk bi. comme ñun ci wàllu religion lañu ëpp lu ñuy yëngu mooy njëkk a delloo lépp ci suñ borom ba pare ndax alxuraan moo wax ni aynama takunu yudrikukumul mawt wala kuntum fi burujin mushayyada cest fu ngeen mën a ak lu mu ruxe-ruxe ak lu mu am am sécurité du teesu dogalub dee waree ñëw mu mën leen a fekk foofu waxaat feneen tamit ne xuli inal mawta lazi tafiruuna minhu fa innahu mulaaqikum suma turaduuna ila alimil xaybi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun ci suratul jumaa de man nga koy daw ba wut sax yuy dox sa digg ak moom waaye nag du tee su appam jotee suñ borom dana ko indi te foo mën a nekkit dana la fa fekk kon première réaction mooy d'abord jàpp ni suñ borom moo bindoon ay bakkan ci coobareem ndax suñ borom du def dara lu ñu koy forcé faalun li ma yurit la tudd eh, bakkan yooyee appam leen doon appaloon tey la waroon a yem loolu nag mooy li nga xam ni mbirum suñ borooma waaye dañuy wax ni sabab bu am day lëkkaloo ki xew-xew loolu sëñ Musaa Ka cest à loo gis lu nekk am na lu ko sabab ci zaahir euh, li ko yi koy sabab nag lu mën a bari la mas naa ko wax ci benn émission yàggul ndax man def naa ko de la route am naa permis dinaa dawal mais damay gis que ni Sénégal euh, benn oto yi ci boppam meluñu ni ñu war a mel ñiy dawal oto it ñu bari ci ñoom euh, corps bu ma respecté la parce que ñoom ñoo ñuy transporter fu suñu bëggee dem fenn waaye ñu bari ci ñoom tamit meluñu ni ñu war a mel comme ni ma nangoo ni man je suis corps bi ma bokk am na ci ñu melut ni ñu war a mel ndax l'être humain n'est parfait kenn ci ñun matul waaye nag da ci am ñoo xam ni matadi gi <laughs> du lu naturel xam nga matadi doomu aadama voilà suñ borom ma ko ko mooñaale muy ku ñàkk mat mm-hmm. mais ñoom ñooy man man nañoo mel noo xam ni matadi gi ñoo ko ñoo ko waral mm-hmm. ñoo ko kereel seen bopp mm-hmm. donc gis nañ ni daal Sénégal depuis janvier 2022 ba suñ jonn yàlla tey janvier 2023 laa bëgg a wax ñi ngi gis ni bis bu nekk ay accident de circulation mi nga am yoo xam ni ay bakkan yu bari moo ci rot hmm. loolu nag état bi jëloon na ay mesures comme ni nga ko waxee sànq waaye gis naa ni loolu dafa mel ni sax lu yokk mbir mi parce que booy xool ba accident si kilo bi amagul hmm. jëluñu woon yooyu yooyu dogal hmm. booba la bakkan yi gënoon a néew ko ginnaaw bi nga xamee ne si kilo jàll na ba ñu jël dogal yile kon mu mel ni dogal yooyu moom saafarawul mbir mi ñu wax ni kon état bi nga xam ni moom moo fi nekk ci à travers son ministre euh, du transport ak ñi nga xam ne ñoo seq secteur boobu la di transport. Mhm. war nañoo toog càmbaraat mbir yi suñu waree éliminer oto yoo xam ne dootuñu daw ñu éliminer la mhm. parce que maa ngi dégg sax ci rumeur. Mhm. ñu ni benn biche bi nga xam ni moo mbëkkante ak camion bi. yeboon na ay gaz. xam ngeen ni gaz du oto bu nekk moo ko war a transporter. kon problème am na ci contrôle bi. problème am na au niveau des des conducteurs. comme si problème am na. ci oto yi ci boppam mhm. loolu nag état bi bu ci nekk war naa wut ay experts ñu jàngat ko mhm. ba xam où se trouve le problème ñu jëm koo résoudre su dul loolu bis bu nekk ci jooy la Sénégal di nekk Babacar kon jot nañu xam où se trouve le problème vraiment ñu ñu mën koo gaaw joyante wax ñu am solo la wax nu mu amee solo mooy jafe-jafe bu amee wala problème bu amee ñu xool lan mooy cause bi cause boobu nag la ñu war a gëstu te yaakaar ne aussi tamit ne suñ ba pare nag war ay mesures yu tax ñu wax mesure mm-hmm. parce que tamit Sénégal même bu dul euh, li am tey gannaaw bu ñuy jaale famille ñi nga xam ne dañ génn àdduna du fi yàgg am la ni mu ko waxee léegi mm-hmm. donc dafa jot ñu taxaw ci loolu ak fulla ak fayda jot ci jël ci ay mesures yoo xam ne ëllëg ku bëgg def loolu dana moytu loolu am na ñaari mbir yu am solo yu mu wax benn bu njëkk bi nee oto ba kay oto ba donc mm-hmm. état wu oto yi léeg-léeg nga gis ci li nga xam ne mooy euh, visite technique suñu ne la oto bi am na sañ-sañu daw ci tali bi da nga da nga yéemu ci ci yàlla parce que wax nañ fi bu yàggul ci ay écho yu ñuy dégg wala ci yenn mbir yu ñuy dégg ne même am na ñoo xam ne bu ñu dem visite technique <coughs> dañuy dem luwe ji ay pneu pour mën a dem suñu paree dellu ak yeneen ak yeneen yi ñu dégg wax na tamit ca nit ki parce que oto bi bu weesoo nit a koy dawal nit ko koy dawal war na am na mu mel sell ci xel sell ci ak yaru ak lépp parce que tali bi tamit du tali boo xam ne bien vrai que tali am na xam ne dafa xat waaye lu mu xat xat xat tamit su xoli xatee bu boobaa tamit xat day feeñ ci tali bi kon donc am solo fu mu nekk ni comme ni mu ko waxee ñu gëstu problème bi mooy ci code oto yi gëstu problème ca ña koy dawal beneen bi topp ës tamit koy daanale ës tamit mooy que ne Sénégal yàgg nañ ko wax tant que jugguñu sévère jël matuwaay yu sévère du dem ba pare niñ ci taxaw nu mu gën a gaawee <coughs> am na solo course. affaire bi c'est c'est triste hein. ah. ba c'est désolant. dafa dafa métti ci xol. surtout ni ñu ñàkkee seen bakkan sax dëgg la comme ni ko imaam waxee. araka raaka nasital maut wal maut mawridu. dee mom boo doo xam fan la lay dogalee ak fan ngeen di dajee. mais bi ci gën a métti mooy seize morts dañoo carbonisé wu. Mhm. c'est triste. dafa metti trop. te facteur humain am na ci comme ni ko imam waxee. Mhm. loxo nit mu ngi ci. Mhm. parce que ay gaz kenn du ko yëpp ci auto de transport boo xam ne longue distance la. Mhm. ba pare ab nañ ko wax. xëy na sax ak mawlud bi. ak imaam yi ñoom dinañ ci mën a wax ci makaarimal axlaax pour jikko yi. ñi defaraat ko sellal ko. les bonnes manières ñi indiwaat ko. Abdou lii. indiscipline totale la. du dara ñàkk yar la rek. mais Abdou bu ñu yar woon. ñoom ñaar ki nekk war na mën a romb dem si yoon <coughs> te yaru bi du ci kaw tili bi rek mooy ba ngay taal oto ba <coughs> est xaw que nga organe oto bi mm-hmm. est-ce que xool nga pneu yi mm-hmm. sëñ Babacar wax na ko ab mm-hmm. pneu pour dem visite technique boo paree ko dugalaat ay pneu yi benn baaxul mais ab loolu loolu doo xam sax noo lii sax dafa ëpp réewoon da sax naan lii lan la inconscience boobu en tant que nit doomu aadama nga mën a yegg ci dimension boobu nga xam ne yow da ngay ab pneu dem visite technique ñëwaat dugal ci pneu bu bon ba pare bëgg a jël distance ak distance yëpp ay mm-hmm. kilifa. Mm-hmm. te ab li ci gën a garaaw moor yi xam nga day tas kër. Mm-hmm. imaginel per de famille boo xam ne moo yoroon këram yor location. di yor njabootam léegi nga rey ko ci àll bi foofu. këram tas ñi génnee këram doomam dootuñu jàngi. est-ce que ñoom mesuré nañ sax conséquences yi. te bakkanu doomu aadama dafa seer. kon nañ defaraat jikko yi nañ njaruwaat. nañu dellowaat ci suñu jikko yi nga xam ne suñu maam yi moom lañ fi bàyyi woon ñu mm-hmm. defalaata ñu tarbiya yaraat ruux yi salal jëf mm. tant que defuñu ko abdou mm. surprise surprise négative rek la ñuy am. donc di ay euh, mbir yu ah, en tout cas euh, accident mi ngi gën di mm, récurrent actuellement. Euh, malgré que mesures yi ñu jël mais dafay mel ne mesures yi dafay lépp dafay jaaree tàbbi géej mais aussi je pense que l'état des routes aussi c'est à pointer du doigt parce que tay boy xol man diggante fan ak magal gi ma bàggante ci. Euh, parce que bay dem Touba maa ngi jaar ci yoonu suuf bi maanaam route national bi. parce que mhm. appayage bi da doon xat. mais da gis ne même au niveau euh, de l'autoroute nationale sax da nga gis ne doodaan yu bëri yàqu nañ. Mhm. doodaan yu bëri amul tableau. Mhm. da ñëw ba yem ci ne lii doodaan la. tali yi bëri na ay pax. xat na ndaw na aussi nga gis camion buy ñëw ak lumière ñu bëri di daw daw yu metti tali bi xat na pax yi bëri nañ doo daal moom doo gis sax tableau doo gis sax ne doo jaaral génnal fii nga jël tali Bambey ba ba ngay dugg Jurbel mhm. ngay génn Jurbel di ko continuer ba ngay dem ko sax tali bi dara baaxu ci pourtant la responsabilité de l'état aussi est interpellée ñaata tali yu dem ta état aussi war nañu fexe boobu vraiment euh, tey jii c'est que même le truc à péage day am accident mais c'est très rare nga gis fi yenn accident yi mhm. parce que au moins amna deux voies aller deux aller ak deux retours deux mhm. deux fois deux voies mhm. yaa ngi c'est CEDEAO c'est-à-dire que deux fois deux voies yi mhm. permettre na tey au moins xawna élargir un peu yone mais bo xolé ci route nationale bi da ngay gis ni tali bi c'est tellement étroit dafa xat xat xat xat bo xamante ni au-delà de xat bi tali yi dafa toj amul tableau tableau do xamna parce que code de la route ni ngui koy jangé mais bo guéné dang koy gis dans l'application moy tableau yi fi kat troupeau war naa génne fii tel ki da ngay jékki daaw ba yàgg gis sàmmkat yi euh, mm-hmm. forme waxuñ leen ci ne tel kii war ngaa jaar secteur bi te dañ ko war a wax mm-hmm. ni nga war a jaar sa troupeau yooyu yëpp tableau yi daf ko war a signaler signaler signalisation daf ci war am doodaan yi virage yi amu ci benn tableau yaay tëñëx tëñëxiti dem rek mm-hmm. beneen mooy aussi l' état des des véhicules léegi gis oto boo xamante ni boo demee boo sama mbokki bool ba nga jógee Tuubaa nga gis oto yi yàpp di dem yeneen dëkk yi oto yi euh, marche pied bi sax ah, marchepied bi sax day diree ko suuf te oto wuru am sax marchepied du yoon marchepied bi dañ ko ci modifier def ko ci oto Ndiaga Ndiaye dañ ko modifier oto Ndiaga Ndiaye c'était pour dessiner mu yóbbu ay bagages ñii déloger ñii jël marchandise mais dañ ko yóbbu ci mécanicien yi monté lañ ci ay chaise monté ci sax chaise doytut ñu yokk ca Versailles donc cest à nit ñi dañu dem ba bakkanu doomu aadama être humain dafa mel ne nekkutu ci priorité kenn dafa mel ne objet matériel bi Mm-hmm. ak bien finance euh, bien matériel bi ak aspect financier bi ngay am. moo la gënal bakkan. Mm-hmm. parce que da nga gis ni ñuy rokk si nit ñi ci oto yi.

lima ma même fi ñuy wax garage clando yi da nga gis gar clando ku ne xam du lu ci yoon mais police ba fa lay monté de pourtant taxaw de mi ngi seen ginnaaw moom mi ngi arrêté di arrêté ay taxi ak di arrêté yu kenn xam sax di clando yaa ngi ci wetam ba ñu ko ba ko clandestinité donc je pense que ne les responsabilités elles sont partagées mais l'État est entièrement responsable parce que moom la ñu dénk ngir muy euh, régulé ngir muy teg mbir yi ci yoon bu jëree mu jël corde mu jël bu jëree mu jël baton mu jël baton fëgg dara tamit bien vrai que ñu ngi wax tali yi mais léeg-léeg aussi tamit ñu jël ay matuwaay yoo xam ne ña leen di défendre syndicalistes yooyu génn di kaas loolu tamit beneen problème la aussi mm. parce que je pense que bu fekkee ne da nga am njaboot mu am ci ñoo xam ne dañuy def naka su dul loolu dafay baax sa biir njaboot nga corriger leen ndax ñu mën a avancer c'est ça loolu aussi dëgg la ci mooy syndicalistes yi nga xam ne parfois ñoom seen intérêt parce que ñu bëri aussi c'est c'est des politiciens encagoulés tout à fait ñoo xamante ni euh, c'est des politiciens déguisés mm-hmm. bon souvent loolu da ci am parce que rôle syndicat mm-hmm. défendre les intérêts moraux ak euh, matériels yi daan tax ñu koy def ñu ci ëpp léegi malheureusement danaka dañ ko dañ koy ngubbo buñ xasse ba am ascension ascension lañ ko mujjee jàpp la passerelle politique mhm. buñ accéder au sommet de l'état ñu changer wala bokk ñu am ñu leen di diviser ñu responsable tamit mhm. conducteur yi mhm. il faut ñu responsable ñu xam ay nit la ñuy ay doomu aadama ñi xam li ñuy def ñom conséquences yi ci mëna am ñi def ko ak responsabilité ba paré ñu souciant ci ñu ñuy yàpp parce que Abdou dafa am xéetu auto yoo xamante ni waratul daw Sénégal. ci yoon mhm. du yoon. Mhm. yow lii nga jël di ko daal wóor na la même bu dara sax mais yow ta propre personne. mais mais organe yi baaxul. amul ben baaxul waaw amul frein normal dara auto mën na def sax choc yàlla tere parce que moom. Mhm. du kese oto. waaw accident bu bettee la waaw sax mën naa def choc. waaw mais au moins. confortabilité bi muy àndal. merci dina tax au moins dina dina <laughs> amoindrir les risques. ak cas bi waroon a garaaw. tout à parce que boo xoolee oto. dafay waxtaan ak nit. waaw bu normal yëpp. tableau de bord. day dialoguer ak yow. non tableau de bord bi lépp lu ci rouge rek. dalay la koy wax parce que lépp lu ne ci oto bi ba centre bi ngay takk. waaw boo duggee takkoo ko sax. mu signalé da mu yuux. day signalé waaw du du si arrêté tant que takkoo ko. du arrêté. Mm-hmm. léegi dañuy dem ba sax léegi nit ki day jël au ko que mu takk ko de. da koy mm-hmm. takk ci ginnaaw. Mm-hmm. pour mu pour que mu noppi <laughs> mu gën koo tànqalati. yaa ngi cest à yooyu tamit tey fu doomu aadama. bu rétroviseur. oto buy ñëw boo waree signal kii doublé barki dem rek ñi am na ko ko def si yoon bi mais se c'était c'est grave doublé droite ba pare daw xelu métti. Mm. mais xamul na route nationale maanaam xam naa chauffeur bi euh, mi ngi naan xanaa kii gan na ci yoon bi mu ne kii su ma yàlla xam ni la ko mu ne kii su ma su ma defoon nii rek. day tiit ba day day wuti la oh. droite xam nga droite la ah, doublé xam nga doublé gauche au moins tane euh, chauffeur en général ni da lay sóoraale day pousse mais néna suma néwon ni rek wala ma klaxonné bu baax rek day mhm. saaraan na le ben passero mu ngi daw xelu met chauffeur bi njaga saala mom moom orelu mbar Euh, euh, ñii bi ñii bi Dakar lay daw mooy Cheikh Chérif yi xew léegi minibus yu baax la yu confortable climatisé ñun déjà mbar euh, am nañ fa yu mel noonu Fallou Mbengue moo ko yor ah mm-hmm. ma profité sax ne képp ku bëgg dem mbar wala ngay yóbbante bagage oto bu dem mbar yi laa bàyyi sama oto jël ci oto 5000 francs donc mu yóbbu jëlee la fii Dakar yóbbu la ba mbar macha allah mm-hmm. tout droit péage bi day jël jaar Bambey ba ni muy duggee Gossas dem mbar donc sa doo am benn jafe donc ba pare yóbbu du yor bagage yu c'est-à-dire que da ngay da ko teg ci yoon daal. dafa am solo dañ ko war a mettre au cœur valeur humaine mais malheureusement oto yi vraiment dawal yi ci tali bi baaxul comportement sax ni nga ko waxee risque jël souverainement ngàcc kii jël tubaay ji mu wàcc suuf taa que nit ñi doo xam ban genre de yàlla ma yàlla baal sax muq hmm? ah, mi muq moom beneen kaa la te Abdou man gen <laughs> euh, ñu point bi gaaw ak euh, ci gàmm gi ñu ñëw mm-hmm. Mm-hmm. parce que ñii dañu dem Tivaouane ñii dañuy dem Touba ñii mm-hmm. Kaolack ñii Medina Gounass ñii Fouta ñii ñaan yéen chauffeur si sensibiliser sensibiliser de lañ leen ko ñaan ngir yàlla rek nit ñi bu ñuy jógee seen kër di dem gàmm ji pour màggal Seydina Mohamed moo tax. Mm-hmm. Mm-hmm. te ñom ñep dañu bëgg ñibbisiwaat ak dal. Mm-hmm. dans la tranquillité seen kër seen jabot surtout ñoo leen koy ñaan ngir yalla ngeen daw nànk. yóbbu ñi ngeen di yóbbu ñu gàmm ci sëfoor bu ci sonn nga and ak kenn jox ko ak mu liggey mais bëgg dem Touba 4 fois ñëwaat Kaolack 3 fois ñëwaat. mën ta nek c'est impossible. xol leen lima nek ngeen def ngeen xamne ngeen respecté.